Euh, problème bi ñu am mooy nit ñi du ñuy dem di déclarer seen impôt seen revenu yi nga xam ne dañ koo am da ngay revenu yi nga am da nga koy déclarer suñ ci jógee en fait waa impôt jox la benn kayit ne la lii nga war a fay nga saytu ko su fekkee loolu la nga dem fay problème bi mooy réflexe bi nga xam ne dañ ko war a am pour dem ci administration fiscale ne écoute fii laa dëkk sama numéro carte d'identité mi ngi nii sama numéro identification fiscale mi ngi nii defal leen ma kayit boo xam ne sama revenu yi su ma ko amee na lay fayee loolu kese la mais nit ñi duñ def réflexe boobu soo xoolee ci li ñuy wax ci signe extérieur de richesse di nga gis nit mu yore oto bu rafet di sol ay costume yu rafet cravate am kër bu rafet du déclarer benn yoon impôt alors que am na ñoo xam ne en fait ay entreprises yu ndaw ndaw loolu la ñuy am mais tous les trimestres dinañ dem fay seen contribution globale unique loolu la ñu war a indiwaat xoolaat ko il faudrait que naturellement ku ci nekk revenu yi ngay am nga déclarer ko ñi nga xam ne dañoo nekk ay salariés amuñu fu ñuy jaar ça veut dire que retenu à la source la fin du mois bu jot sa net ngay percevoir li nga war a fay impôt da nga koy fay donc ñi nga xam ne ay salariés lañu amuñu problème ak ñoom ñi nga xam ne en fait nekkuñu salariés nekk en fait des chefs d'entreprise wala des commerçants te duñu déclarer commerçants yu bëri dinañ déclarer mais liñ dul déclarer pour la plupart mooy en fait seen revenu yi am à la fin de l' année loolu nag il faut ñu euh, expliquer leen ko ne leen civil fiscal bi moom mooy moo moo war chaque année ñu ñëw xool li nga xam ne dañ ko gañu jox ko immeuble yi bëri na Dakar mais est ce que ñëpp a ngi déclaré am na ci études yu ñu def yoo xam ne am na deux cent mille yi fiscaux yoo xam ne ay immeuble yoo xam ne kenn déclaré wu ko loolu problème la il faut nag en fait aujourd'hui ñu sensibiliser ñëpp déclaration yi war a def à la fin de chaque année